vraiment vraiment nit ñi dangay dem ba da ngay waaru quoi da ngay rus quoi. képp ko wan gannaaw sa ndey ak sa baay ak kaneen koo mën a jubal ak loo mën a yaakaar ci moom amalu la njëriñ bu la ndoxul. ku leen wax dëgg lañ bëgg wala ku leen waxi fen man boo ko seetee ba seet ko nag danga nga naan ñii nag ku leen waxi fen lañ bëgg. moom door a jariñu sëñ Tuubaa bi mu fi nekk képp ku mës a ñëw jox ko boppam bala ngaa toog da laaj ndax. sa ndigalul wajur la nga ni waaw mu door la bàyyi ndax ñu ngi dund nga ni waaw mu ni demal yoral ma leen ba noppi leen a gis mais ñi wax dëgg di wax li yonante bi jàngale di wax li serigne touba bind jàngale ko di ay netlem di nettli mag ñu baax ñi bëgguñu ko barke serigne saaliwu mbàkke ku leeni jay lañ bëgg ku naan leen aras dajj nañ ko ba sànni ca àll ba ku naan leen bërëngu leen dugg àjjana bu leen jaamu loolu lañ bëgg jaamu ji leen yàlla la Serigne Touba wax sa bopp laay jaamul yàlla Serigne Touba lim bind daa leer naññ ne midi barki alxuraanu karim su yomal xiyaamee xoola du layoo kenn daa wax am ñu dégg mu bind ñu bàyyi fi am ñu koy liir am ñu ko xamul am ñu leen koy liiral di leen ko leeral ku mel ne ñu Mbaye Ngiraan mii nag daa bokk ci jëmm yooyee sëñ bi gone yu ndaw yoo xam ne jànguñu alxuraan jànguñu xasida jànguñu dara ak taxawaaloog wëri tàntak fu ne ngeen dugg fa màggal gu ngeen dugg dem fa di dóor wuti base ñooñu ñooy taf sëñ bay ngiraan di ko saaga ak xas waaye boo bëggee dégg njàngalem sëriñ Tuubaa demal nga déglu ju sëriñ Mbay Ngiraan su fekkee da ngaa bëgg a dégg dëgg bu dee ku lay jay nga bëgg nag ak ku lay yombalal àjjana doo ko mën a déglu parce que nekkul ci bagage yooyu kon Serigne Mbaye Nguirane fi nga teg sa tànk foofu la man de wax dëgg yàlla say waxtaan maa ngi ciy jariñ barke alxuraanu karim maa ngi ciy jariñ